asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci revue de bi waaye nag laataa loolee kii gën ci page bi te abonné go dañu lay ñaan nga abonné tabas cloche de notification bi ngir loolu dinañu gën a jàppale ci liggéey bi ni ngeen ko gisee nii ci écran bi rek laal bouton abonné bi ak cloche bi tey bés like bi ngir loolu dina doolal chaîne bi jërë ngeen jëf revue de bi nag fii ci sunu réew la koy dooree stade di a kaay mu ne Sadio après Angleterre kon nag kii di Sadio Mané daal jamono ji li àddina bépp doon bëgg waaye it rawatina ñun Sénégalais yi yàlla suñu borom dogal na ko muy quitté na ca Liverpool quitté gu officiel gu àddina bépp yàgg tey jii nag di mercredi di àllarba bu dee ci tubaab mercredi bu dee ci ñun wolof yi moom mercredi leen koy wax muy li nga xamante ne moom la Sadio Mané wala dem ca Allianz Arena waaye nag danañu leen ko toppal histoire Sadio Mané bépp tey ji bu signé danañu leen ko ñëw bindal la def Liverpool leen ko defal ci xibaar kon nag ñun dara duñu ko bàyyi ndax Le Monde Sport moom amul benn sport bu muy bàyyi ci réew mi rawatina sunu doomu Sénégal bii di ñaancoo Sadio Mané dañuy jóge nag ci record ba tey ji rek ñëw jóge ci stade ñëw ci record moom it ñëw na ci kii di ñancoo Sadio Mané nee na bayax ne visite médicale passe avec succès kon nag kii de ñancoo Sadio Mané visite médicale yëpp romb na moo tax nag mu bind ci suuf ne Sadio présenté Allianz Arena si mercredi muy tey jii la ñu ko war a yóbbu ca Allianz Arena jébbal ko Allemagne yëpp ne leen kat kii di Sadio ko juboo leen te juboo te it moom it mu ànd fi liggéey ngir li ko yëkkati bi ci Allemagne gi comme ni ngeen ko soxla kon nag kii di masal tuuti waaye bu ci kanamee tuuti ba Sadio Mané dem ci Allianz Arena danañu leen jébbal information yëpp te diiral leen ko waaye jébbal leen li nga xamante ci ni histoire bi Sadio Mané bind foofee ca biir Liverpool lépp danañu leen ko tënkal kii di Lamine Jarju nag doomi Gàmbi la waaye nag moom it mën na la muy def lool waaye moom nag li mu bëgg moo di choisir football équipe nationale de maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi na dem Gàmbi nga mu dëkk wala mu ñëw fii ndax Gàmbi ak benn lañ dañuy wutali nag réew mi quotidien sport moom it ñëw na ci Sadio Mané Mané présenté si mercredi muy Mané tey ji lay présenté Sadio Mané sur bi dëgg la ci moom waaye it moom it mi ngi koy wane club bépp boo xamante ne jaar na fa rek wane na ko journal bi it fàttewul ñii di waa FIFA waaye it ñii di waa Qatar ñoom ñi nga xamante ne nii coupe du bi ñoo ko war daloo ñoom nag lancé nañu seen message maanaam danañu ne xam ngeen ne voyage bi la mu ñëw wala vacance bi ngir wutale Qatar nee na ñëpp koo xamante ne ñëw nga fi te àndaale woo sa soxna ne ci xale yi di fo bañ jàpp la wala nga ne fi koo xamante ne da ngay fo te yuroo soxna loola kat danu ko dàq maanaam danu koy tere te ku ne ci jàpp danañu la tëj lu toll ci juróom-ñaari at kon nag kii président Qatar ba yëkkati waan nay kàddu ndax ñoom ay julli lañu te li julli di doxal la doxal kon nag loolu ñu ngi koy rafet lu baax a baax ñun sénégalais yëpp kii di président Qatar ba moo yëkkati yooyu kàddu wutali nag sunu làmb sunu làmb it moom it ay dagg yu métti yoo xamante ci ni waa CNG ñu ngi koy dagg la dal di ñëw fasal ci xadu njëkk franc perte na lu toll ci trois cent trente mille moom nag moom la perte loola nag wàllum avertise yaak yenn yi nga xamante ni amoon na ci làmb ja moo ko waral nag loo xamante ni neexul te sunu borom àndu ca nekk nag ci làmb ji kon nag dañu leen cee war a jàppale maa ngi sama foofee it ab laaj lii CNG def d'accord ngeen ci am d'accordu leen ci wala kat xeex ba amoon wala supporter loola kan ma war a dagg bi metti waaye kii di sunu làmb nag loola la dal di beccal ci wala fa kon nag kii di waa CNG ñoom ña ngay wéy di dagaatee kon nag dañuy jóge Sénégal nànk wutali Madrid fekk fa marka yéenekaay yi Nasir Al Khelaïf moom nag mooy parisien bu Paris Saint-Germain moom nag xam ngeen ne démb dafa siqoon ak waxtaan wu yaatu kii di marka yéenekaay moom Al Khelaïf moom nag benn waxtaan wa ñu njëkkee laaj nañ ko ci mbiri kii di Mbappé mu ne ko Marca ne ko Mbappé kat dafa mel ni yéen yéen a ko yàqal Real Madrid mu ne non mbappe Mbappé nit la te mooy jëlal ay décision boppam moo xool Paris ba mu neex ko mu yokk kon raam ñu laaj ko ci mbirum si ñor mu dal di ci wax ne Neymar moom maanaam mbir mi niwul waxi biti waxi biir la ñoo ngi koy lijjanti ci suñu biir kon nag ñun ñii amatul yaakaar ne kii di Nasser Al Khelaifi ñoom noppi nañu pour téye Neymar Senior benn bëgg-bëgg nag la ñu am pour ngaaw jaay ko moom Neymar nag dafa mel ni am na club ko bëgg ndax Juventus déggoon déggoon nañ ko ci ak Barcelone kon nag kii di Nasser Al Khelaifi loola mu wax leer na naa ñi ñu laaj ko ci mbirum Zidane mu ne Zidane amul benn waxtaan boo xam ne mos nañu koo séq ngir waxtaane kat li nga xamante ci ni moo di mbirum mu ñëw fii ci Paris loola kenn mësuñu ko waxtaanee gars yi ñooy jox seen information rek kon kii di Nasser Al Khelaifi moo yëkkati yooyu kàddu dañuy jóge nag marka yéenekaay yi wutali aas yéenekaay yi kii di Courtois la fasal ci xadu njëkkam Courtois nag kon mi mi nga xamante ne mooy numéro un bi nga xamante ne mooy Real Madrid ba di gardien bu man la muy defa ñi tax waa Real Madrid di liggéey bu ama am solo waaye nag journal bi fàttewul ki nga Ariel Witzel ne foofee ca biir doxtu mun moom nag kon dana wutali Atlético Madrid ngir kat moom a am yaakaar ne mooy wutali Atlético Madrid ngir kat Marseille mi ngi ci waaye dafa mel ni ñoom xaw nañu cee yambare tuuti ngir ñii ne Atlético ñoo leen ci gën a am ful waaye gën leen coo dox loolu journal biir faatewul kii do Roberto Lewandowski moom ba tey ji waxtaanoo rek ma ngi wéy di sori diggante Barcelone ak ñi nga xamante ci ñoo di waa Bayern Munich moom gone gi Paris indi offre mu ne leen dem leen wax ak Barcelone kon nag li mu bëgg moo di football ca Barcelone kon nag ñoom waa Barcelone war nañoo war nañoo def nu mu gën a gaawee rek ngir mën a lijjanti ki nga xamante ci ne moom moo di Robert Lewandowski ngir moom lu mu am lu mu bari bari football Barcelone moo ko gënal dañoo jóge nag as yenn kaay wutali Barcelone fekk fa Mundo Deportivo ñëw na it ne Barcelone ci waaye ma nga xam ko numéro 9 yi gën garaaw ci àddina bi dañ ko ciy boole rawatina kii di Bernardo Silva moom mën na la muy def lool milieu de terrain bu la kuy séddale bali la kuy joxe sonal bi ñëw na ci Lionel Messi jamono ji may wax ji nag nga ca Espagne benn vacance moom fa doon amal moom ak soxnaam ngeen gis noonee ci photo bi ca kaw ci kaw mundoo gi kon nag Messi Espagne ba tey ji xoolam ak xelam lépp ma nga fa kon nag kii di Lionel Messi dafa mel ni nee na ca club boobee de pare rek waaye dafa mel ni bëgg-bëggam nag bay tey ji ma fa ca biir Espagne ndax ay xaleem sax wala ay goneem ay doomam yu bari yoo xamante ne ci ñàng lañ toll ca Espagne la ñuy jàngee kon nag Messi fàttewul Barcelone de quitté na fa nag fubalatu fa waaye nag dafa mel ni fàttewu leen kon nag journal bi nee na transfert yi yëpp ngeen gis Barcelone mi ngi ciy liggéey lu ama am solo dañuy jóge nag Mundo Deportivo ba sport ñëw na ci li nga xamante ci ne moo di mbiru Rebatou Ndour ndax gis nga mu ne Lewandowski pee di négocier kon nag dafa mel ni négocier yu xamante ci ne saf na sàpp ci diggante club bi ak ki nga xamante ci ne di waa Barcelone ni nu ñu mën a def ba kii di Robert Lewandowski ñëw foofee ci biir Barcelone moom Robert Lewandowski lu la na daal benn bëgg-bëgg la am muy lépp lu ngeen mën a def daal fexe ba ma dal di wutal si fi nga xamante ci ne moo di Barcelone mooma ëppal solo kon nag fexe xeleen ba dal ci wax kon nag ñii di waa Barcelone ñoom war nañoo lijjanti mbirum Robert Lewandowski ngir moom kat benn bëgg-bëgg rek la am muy quitté Bayern ne nu mu gën a gaawee ngir wutali Barcelone journal Espagne la ne ñoom it ak espagnol lañ ñoo tax dañu koy béccal yëlay xibaar Axel Witsel nag dafa mel ni jege na loolu nag pour football fa nga xamante ne moom moo di Atlético Madrid dañuy jóge nag Barcelone wutali Angleterre njëkk ko ci kii di Mirror Sport Mirror Sport it ñëw na ci transfert kon nag Arsenal ñoom ña nga yokk seen doole club bu ñu dem ci Ligue des Champions ba kat fa suyéer yu man la ñuy waaye ñëw na ci kii di coach Angleterre moom nag benn bëgg-bëgg la muy suyéer yi anglais yi ñu def ñu jëmbat ful ngir kat bu ñuy dem ci coupe du monde boobu duñu ca weet moom it du ca weet kon nag ñi équipe nationale boo xam ne dañuy vignable ba du ca xam lu bari kon nag ku ci jëmmatul ful ko ne da nga perdre lu rëy moom kii di coach Angleterre bi moo yëkkati yooyu kàddu moom nag nee dafa bëgg Angleterre yëpp ñu am club yu baax ngir bu ñuy dem ca Qatar ñu demande fa fulla ndax ñoom championnat bu seen Angleterre loola kat benn joueur boo xamante ne day doomu Angleterre waru faa wane ak yambar wala ak jéggi dayoo dañuy jógee nag Meroot Sport ba tey jii rek Angleterre la des dañuy wutali Star Sport Star Sport it ñëw na ci wàllum transfert rek ba tey jii ñëw ne moom ci Sénégal ngir passé ay visite médicale am bu yëpp yemee woon nag xaatim contrat ak ñoom lu ci ñetti at kon nag kii di local ko moom la moo bëggoon maa ngi koy waaj am muy quitté fa nga xamante ci ne moo di Chelsea nu mu gën a gaawee ngir mën a wutali Inter Milan gi nga xamante ne jaaroon na fa def fa histoire bu rëy rëy waaye it journal bi it nag quitté Liverpool ya ne mii kon nag Sadio Mané mii li àddina bépp bëggoon ci moom dana ko defi ngir kat wutali Bayern ne ca Allemagne bu fa demee nag man fa bind taarix bu rëy rëy moom kii di ñancoo Sadio Mané kon nag dafa mel ni tey jii la ñu koy présenté àddina bi wutali nag Italie fekk fa Corriere dello Sport moom it ñëw na ci Lukaku waaye it ñëw na it ci yeneen transfert Lukaku nag dafa mel ni mbir yaa ngay bëgg leer ngir xam ngeen ne heure bu set bu ma leen tuddalee Corriere dello Sport naa leen tuddal Lukaku ci ay mbiram Inter Lukaku notifié fii kon nag kii di Lukaku daal dafa mel ni léegi tey rek mu daal di wutali foofee ci biir Inter Milan ngir ay passe visite médicale yu mu fay def loola nag bu yembee kon mu xaatim ak ñoom contrat lu toll ci ñetti at moom nag loola yàgg gën a na ci Azam ak ñi nga xamante ci ni ñoo di waa ngir moom Pogba mu mën a dem moom nag kon ak diggoo dina dox diggante Juve ak Azam mu mën a xaatim contrat ak ñëri waa xaatim contrat ak salaire bu baax a baax moom ki nga xamante ci ne moo di Paul Pogba dañuy kite nag Corriere dello Sport wutali ki nga xamante ci ne moo di Tuttosport Tuttosport it ñëw na it ci Dybala waaye it ñëw na it ci ki nga xamante xamante ne moo di Lukaku rawatina kii di Paul Pogba Paul Pogba nag jamono ci may wax yéen ma nga ca dëkkam ba mu jóge woon maanaam dëkkam di cosaan muy Guinée fa la dem benn vacance démb nag gisoon ngeen vidéo bi dugaloon naa ko moom kii di Paul Pogba nag kon fàttewul ay njoñam waaye it fàttewul fa mu cosaanoo fi nga xamante ne fa la juddoo daal moom fàttewu ko moom nag maa ngay football France waaye nag doomu France la ak Guinée kon nag démb la di gën a gépp génne bëggal ko na ko yow Paul Pogba kat yaa nga ca sab club ak sab équipe nationale waaye ñu nit fàtte wuñu la nga deret ji daw ci yow mooy daw ci ñun kon nag duna la fàtte benn yoon kon nag Paul Pogba def na lu rafet Dybala nag ay négocier mi ngi dox diggante Inter ak ñii di waa wu kii di Dybala rawatina Lukaku ak ñii di waa Inter Milan ngir ñoom dañoo bëgg bu nee dem ci Ligue des Champions ba kan ñu yóbbu fa ay gone yu man la ñuy def gone yu viable kii di Tuto Sport nag moo ñu beccel yore xibaar kon nag kii di Lukaku ak Diego dina dox diggante Inter Milan ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Chelsea pour mu mën a quitter Chelsea nu mu gën a gaaw wutali Inter fii sax la ñuy ndar képp xibaar yi muy La Gazzetta dello Sport moom it ñëw na beccal ko am moyen muy Inter mais ji man Kinkita moom kii di Lukaku nag li ñu gën a am ci moom yaakaar moo di mu wëtali fa nga xamante ci ni moo ci Inter Milan ngir kat bu demee xaatim ak ñoom contrat journal bi it fàttewul Lionel Messi moom ngeen gis noonu ak soxnaam wala gelem rek la ñu koy waxa moom nag démb dafa wutali woon Espagne ngir kat defoon fa benn vacance waaye nag démb daal loo xamante ci ni moom Lionel Messi yëkkati na ci kàddu bu bari na lool waaye nag danañ ci indi ak yaatal journal bi it ñëw na ci kii di Paul Pogba dafa vacances jamono ji may wax yéen Guinée ànd ak Guinée gépp génn Guinée gépp it di ko tertu kon nag kii di Paul Pogba fàttewul fa mu jógee muy fa fete biir Guinée moom nag ma nga fay wéy rek di def am wàllu vacances ngir génn àddina bépp mën koo gis ñu xamal ne kii di Paul Pogba nag Guinée la dëkk te yàgg-yàgg it Guinée la kon nag fii leen ñu nar képp xibaar yi ba ci kanam tuuti rek ak beneen vidéo incha allah waaye te bés ko la te notification bi jërë ngeen jëf